président doo nekk chef de parti da ngay démissionner. oui je pense que ni je prends cet engagement que ni. dina organiser je prends cet engagement je prends cet engagement. vous voyez dès qu'on touche à rek. ngeen hésité non non wu ma. ah wu ma. vous pensez je prends je prends cet engagement de ne plus être chef chef de parti. Hmm. d'organiser le parti pour que parti bi am une vie en dehors du président de la République. c'est extrêmement important. mais en France ak yeneen i système démocratique président de la république jiitewuñu seeni parti ca parti yooyu am nañ doole ca continuer nañ di am influence parce que am solo mooy président de la république am influence ci majorité am influence ci parti am c'est pas nécessairement dafay nekk président du parti c'est pas nécessaire hmm. parce que influence bu mu soxla mën na ko continuer di ko am dans le parti mais pourquoi demaloo ci ci ci dialogue bi est-ce que euh, c'était pour éviter de de de, de dans euh, nu mu dans le dans la charte de de de, dans le piège de la de la charte de Yewwi lu tax nangu loo woon <laughs> dem ci dialogue bi. Ah, charte Yewwi tënkuma foofu. ah liñ ne nul ne doit se rendre coupable de compromis ou de compromission avec Macky Sall loolu moo tax. demoo ci dialogue bi non non parce que dama yaakaar ni contexte bi dialogue bi am. Euh, ni ki président doxale les conditions d'un dialogue sincère inclusif mënoo ni da ngay woote dialogue may mun a jamono bi ngay woote dialogue ñi ngi wax ay 700 prisonniers au Sénégal politique 700 prisonniers politiques mënoo ni da ngay woote dialogue Sénégal jamono bi ngay woote dialogue may mun a benn ci parti ëpp doole ci opposition presque directoire politique ba yépp ñu ngi ci kaso bi. du benn ci parti yi parti bi ëpp doole ci opposition bi. Eh, benn ci parti yi ëpp doole ci opposition yi directoire politique bi yépp ñu ngi ci kaso bi. li ji kàngamu parti bi yépp ñi ngi ci kaso bi mënoo ni da ngay woote dialogue benn ci parti yi ëpp doole ci opposition yi leader am ngi ko tëj këram résidence surveillée. bu teguwul ci benn loi bu teguwul ci benn tex bu teguwul ci benn décision de justice bu teguwul ci dara loo xamante ni benn juge moo ko jël walla benn tex walla benn loi lu tegu ci bëgg bëgg président Macky ak Antoine Diome violation yu grave yu tol noonu yu garaaw a garaaw parce que réew may mën a day dox ci ay loi même bu fekkee léeg-léeg di nekkul loi yu baax xam nga Macky Sall day wote ay loi yu baaxul pour galgal ay adversaire def na ko ci article vingt huit vingt huit ak vingt neuf mais mu nuru nuru lu loi sax moo gën li def Ousmane sonk li def Ousmane Sonko tëj ko cité kër góor gi loo xamante ni benn juge décidé wu ko benn loi su ñoom sukkandiwu sukkandiwu kuwuñ ci loolu lu garaab la précédent bu dangereux loolu mooy état buy dox ci violence état buy dox ci fitna état buy jox ci domination état bu bàyyi état du droit ci état dafa war a tënku ci ay loi même bu fekkee loi yi mën nañ koo tëggee noo xamante ni sax day dal ci askan wi mais mu nuru nuru lu loi ci jamono boobu may mun a nga ne da ngay woote dialogue may mun a loolu bokk na ci condition yi nga xamante ni ñun FDS les Guelwaar jàpp nañu mënuñu woon a wuyu ji makki Sall ndax wuyu ji makki Sall dafay mel ni nga daganal stratégie politique bi nga xamante ni teg na ko ngir ama stratégie politique bi. ay stratégie politique bi nga xamante ni teg na ñëpp xam nañ ko mooy bëgg a isoler Ousmane Sonko loolu loolu may mën a yow analyste politique mooy journaliste bu mag loolu xam nga ko. moi je ne suis pas le meilleur ami de sonk Sonko j'ai des différends politiques très profonds ak Ousmane sonk très profonds yu may assumer publiquement et en privé waaw parce que xam nañ ko waaye dëgg-dëgg rek la mën a nekk dialogue bi ci boppam li ko wund loi yi nga xamante ni ñoo génn ci dialogue bi procédure d'urgence bi ni ko Macky Sall doxal bëgg Karim Wade bokk Khalifa Ababacar Sall bokk nga durcir mesures yi nga jël ci Ousmane Sonko ak waa Pastef ak tey jii li nga xamante ni dal na Birame Souleye dal El Malick Ndiaye dal Bassirou Diomaye Faye dal fadilu Keïta ak ñeneen ak ñeneen boo leen lim toute la direction de Pastef nga jël seen njiit nga def ko résidence surveillée ñun stratégie boobu may mun a wax dëgg yàlla ñun mënuñu koo daganal mënuñu ci ànd euh, bu bu bu procédure bi antoo Euh, mooy les modifications des articles là sur l sur sur l'éligibilité xalifa euh, Sall ak Karim Wade dinañu bokk parce que ñoom purgé nañ seen am nañ grâce purgé nañ seen peine te aussi eu le délai probatoire mais Ousmane Sonko du bokk loolu laa ni man mënuma ànd di yombalal Macky Sall stratégie politique pour isole benn ci adversaire